a'udhu billahi minash shaitanir rajim guddi juroom ñentel ga ci wéru koor ku ci julli ñenti rakka rakka bu ci nekk nga tari fatiha ben yoon tek ci tabbat yada ñett yoon al ikhlas ben yoon sëriñ bi neena ku ko def inshallah des na ko ci bindal tiyabay muñaat yépp te dana melni wàcce na ab kaamil te des na ko ca bindal tuyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ni da ko yendoo woor fanaane ko julli te des na digal ñaari malaaka yuy far ay bàkkaaram di bind ay tuyaabaam ba bisu penc ba te yàlla dana nangu ay julleem ak i kooram te dana ko dimbali dana ko taxawu itam ba kenn du ko mëna a te dina ko musal ci saytaane ak njàkkare yépp ba bisu penc ba des na ko boole ña nga xam ne duñu gis lu leen di ragalloo ba di leen di jàkkaloo te dina ko ubbil juróom ñetti buntu aljana yépp mu dugg ca bu ko neex te deesu ko xisaab